ay rax ci biir gaaw de kenn ku ne la a def kii sax man. xaaral ma julli sax man tey bu ma sëggee est que dinaa siggi sax xaaral ma bàyyi ba ngoon bu ngoonee ma boole suba tisbaar tàkkusaan timis su fekk ma ndogu ba pare yépp ma jullee ndoole parce que tey bu fekkee ne da ngaa liggéey ji doo añ da ngay toog ba ngoon rek nga ndékki waay suba ba léegi yaa ngi toog jógal sama nijaay mi jaaxal na ma ah, kon yow yaakaaroon ne sax yaa ma damaa xamul kooru Sénégal man kooru Europe laa xam nga xam da ngay tëdd ngelaw li di la ëpp bu la neexee guddi ngay lekk xaal tëdd ba 6 heures nga yeewu su ko defee ñaari waxtu rek ngay woor waaye fii naaj bi tàng jër nit ñi nekk fii wax wax man daal xaaral tëdd nii daal koor bi koor bi moom tey dindoo suba dindoo suba koor àndut ak wax ju bëri dama ni nga déglu borom daal moom eh, moom yàlla rek moo sañ a santaane bi ko ne mburu amul looy wax ni mburu amul waaw papa gis nga woon père naka la mais koor gi jàpp na la de yaa ngi tudd daal koor gi jàpp na ko raxle naa na ba pare pare waaw ba ñëwagul waaw kay papa dégg naa la de nga naan jullee boo xoom maître bi fomp leen ko papa lu muy def ni maa ngi ngeen fomp ko maître bi papa ba may naa si biir dégg naa la nga naan da ngay bàyyi ba ndog doog a julli aw ma jot ah, aw ma jot koor gi laal na la de. xanaa eh. koor gi mën na la tey. xam nga man damaa xamul kooru. Ibra Ibra ci biir la lay koor Europe laa xam. nga ah, xam ne da ngay woor ngelaw li boulangerie bi amul. boulangerie amul moom yaay nga tàng mooy loolu a pour moom. nii ay nga moom la sax dina yegg. Mm-hmm. Ah, kon yaa xam a ànd bi du ma jóg soble nga rek ak di wax. xool leen papa tey tëdd. waaw maa ngi tëdd waaw yow mel ni tey koor gi ñëpp la jàpp. ah daa xaw a metti de. yaay damaa demoon di jënd ndogu wante ndogu amul dara amul si bikiti bikiti yëpp lañ tëj fonde laa mujjee jënd. fonde fonde ak fi na wala ñu bawul fonde yéen a eu não fi am wax yu bari ji ñëpp nga daan fonde fonde da la yaay fonde am yaay ku ko sañe lool fonde mu ni békkati dañoo tëj mburu amul dara amul fonde laa jëm maa subhanallah asubhanallah koor bi koor ah papa ah. la jëf ko ba xam ni Kumba wata takkan sànni ba léegi. Kumba mburu amul dara amul. suukar sa amagul si nag kon dem suukar bi muy ànd sa amagul. moom ñoo koy indi moom naka. Moodu na dem jënd suukar moom yor na. déglu leen damaa leen déglu leen mu ngi ñu boole góor xiif di dundee yaakaar ku yaakaar ni di nga am loo ndogoo ñu lay wan loo xamante ni da lay wóor ne yow dañu lay yokk coono jox ma ndox mi man ma naan léegi. non non daa na na na 33 ah des na waxtu bi. Eh, des na de. waxtu ah. ah. des na de man heure bi laa jot sax. des na de. kooku ah. danaa jàpp waaw mu ñëw rek. gis ngeen nag kon de ni amul suukar de. waaw waaw kon nag euh, pexe amul parce que dañoo toll si dëkk euh, jamono joo xamante ni jàngoro la. Mhm. looloo tax xam boutique yi ñu ni dootuñ jaay mburu mhm. man jamono xam ngeen ni. dafa toog yemook ñu tëj sama compte yëpp ñu daal di ko ni ràpp bloqué waaye bu du loolu kon boulangerie laa leen defaral fii kon moom jafe-jafe yi xaalis boo xamante bu ko xaw ma compte ngay def si kër gi waaye waaye nag loolu loolu loolu moom loolu moom loolu ñàkk waaye nag lii moom après ah waaye waaye ah. ah ku ku ci këlamtikuwul it kon it xam naa ni sa. waaw papa ñoom buñ lekkul sax man ak yow ñu lekk moo tax ne woor ba ngoon te lekk nañ def noonu sax ñoom sax léegi sax jaratul sax ñu leen si suura. ñu leen si ci xaalis damaa bëgg ngeen déglu ngeen dese làmmañ comme léegi daal yéen parewu leen pour ndogu woy leen ngeen woor chrétien yi sax noonu la ñuy woy leen ngeen continuer seen woor. loolu mënul nekk papa nag. wo woy leen rek. man moom bis ni tey moom damay woy. woy bu fekkee noonu la man suba moom dama dama fi togg mbaxal saf saf. xanaa feneen xanaa feneen waaye fii fii ak maa ngi woor neex woor neexut woor